yàlla dimbali nañu ba euh, juróom-ñeenti domaine yu compétences yi ñu jagleel mairie yi ku ci nekk ñun jéem nañ ko góorgóorlu ci dara te loolu tamit euh, fa lañ mën a yem leneen loo xam ne nag euh, bokkul ci suñu ay domaine de compétence day jafe trop ñu àggale fa suñu doole budget bi bu ñu ko joxee pour ñu matal def ay jéego ci sport matal def ay jéego ci culture matal def ay jéego ci environnement na sax éducation santé ak planification euh, aménagement ak euh, urbanisme marchés, marché euh, ak tout ce qui est gestion urbaine manam xool walu électricité wàllu ndox ak walu mbalit lepp lépp mën naa wax ni conseil municipal Euh, góor na góorgóorlu nañ ci euh, bu baax li ëpp sax ci li ñuy def daanaka duy jaar ci budget parce que ay xeetu ndimbal la yoo xam ne social waaw dañ koy jot di ko def ci social des fois dañuy am aussi di def ay colonie de vacances yoo xam ne dañ ko dugal ci budget bi parce que dafay cher waaye buñ ci tolloo dañuy jéem a góorgóorlu xool euh, nan la ñuy fan la ñuy ñan la ñuy waxtaan ak ba ñu ci dimbale mm-hmm.

am na lu bari loo xam ne jéemoon nañ ko depuis ci mandat bële ñu koy continuer diko ko da ngay liggéey nak comme euh, doo fi mos a jógee gëm tamit ne euh, suba suba mën ko fi jógee wala euh, yaa ngi def sa dernière sa dernier sa dernière année ci conseil municipal donc boy liggéey pour Koungheul do set politique do set dara da ngay xol lépp luy doxal nga jaar ci lépp loo xam baaxul nga teg ko buñ ñu jëlee wàllu eau ak assainissement ndox mi ak cet gi ak euh, xool lii nan lañ ko def dañ wax ne euh, Koungheul nag dafa màggaay bi moo ñu jaaxal dañuy màggee ni quartier yi développé woo mais ni ñu di yokkoo àndul ak doole maire maire bi ba tax na tey jii euh, commencé woon nañ ci suñu mandat doon dox di jokkalante pour am ay forage am ay château d'eau bu ñu cumulé ñaari mandat yi gis nañ jóge nañ ci 100 mètres cube

am na yu bari yoo xam ne sax jotoon na fi dugg depuis daaw euh, waaye waa SDE ñoo ma ñoo agale woon liggéey bi parce que dafa naan dafa am yeneen problème technique yoo xam ne ñoom dañ ko amoon mais commencé nañu encore pour euh, fexe euh, liggéey boobu mën a continuer. am na nga jàll si domaine électricité bi si côté eau bi gis nañ fi semaine passée directeur Charles Fall ñëw na fi pour ne dinañ dinañ def tout pour liggéey bi gën a mën a continuer ci mois yi ñëw pour ñu mën a liggéey chantier bi est-ce que yow am nga ci xalaat boo xam ne est-ce que loolu wax ndax teelu na ci dé déggoon ci yow ou bien. waaw Charles Fall dañuy jokkoo tout le temps euh, booy seetlu sax at yi fan euh, mois yële passé. Mm-hmm. ñëwoon na fi. ñëwoon na fi man sama bopp maa organisé woon euh, mission bi. Mm-hmm. ba ba mu ñëw bii tamit je pense que buy ñëw fii ñun ñun lay ñun ñooy interlocuteur. waaw parce que suñu may la nekk. bi ñuy dox euh, projet bi sax xaw na jiitu Charles Fall nekk ne euh, nekk foofu bi ñu koy amee léegi nag góorgóorlu na bu baax ci euh, ni projet bi doxee ñu ko ci sant aussi di ko ci gërëm waaye fi ñu toll ñu ngi échangé aussi ak ak moom di wax ni tamit tey jii bu ñu waxee affaire ndox dafa ñëw affaire assainissement tamit mhm. assainissement bi gis nañ ne góorgóorlu nañ nekk nañ mairie boo xam ne toog nañ suñuy bureau def na suñu projet dama wuti financement ñëw di déglu le projet bi tey que yàlla dafa def ne euh, comité de santé yi euh, comité de salubrité yi ñooy xaw a am ay tuuti gàllankoor dañ ne waaw dañ ne donc léegi mhm. il faut que budget bi di ñëw ñu fexe nañu mën a jàppee bu baax comité de salubrité yi est ce que waaw gestion yi tamit dañ ko seetlu parce que joxe nañ ay recommandation yu baax a baax a baax pour que ñu convoquer assemblée générale ci quartier yi mhm. pour encore renouveler surtout Euh, comité de salubrité yooyu fexe ba ñu leen dooleel leen bi pour 2019 bi ñu mën a dox ni ñu war a doxee ñu war charette yi ñu am ñu war a am ñu am ko. recette yi ñu war a recouvrer aussi ñu recouvrer booy xool tamit électricité bi ah, gis nañ ne tey jii hmm, Senelec ñëw na fi def na fi ay euh, visite natt na lépp loo xam ne soxla nañ ko. Mm-hmm. te fas yi ne na ne jàppale ñu pour àggale courant bi fépp foo xam ne moom fa léegi nag il faut ñu koy saytoog moom.

bi ci ñun lañ ko jëlee boo demee gànjaay ñi ngi ñi ngi ci ci lañ ko jëlee commune yu bëri tey yi bi biñ ko commencé ba tey ñun ñooy commune pilote bi parce que dañoo jël risque bi jëpp ko yaatal def ko réussir commune yi di ko topp tey bu ma wooyee maire Gandiaye bi di ko félicité ci lamp ñu def na monsieur le maire yow yaa ko jiite ci yow ko gisee ah. waaw mu nekk ndam loo xam ne aussi conseil municipal bi

waaw loolu loolu loolu dinañ bénéficié wu ci naan bi te am na nu muy demee sax ñun dinañ leen war a mën a jox courant waaw ci waxtaan la parce que aussi euh, mën nga dem ba yow mi di wax ak man sax mun nga am kër euh, biir commune euh, commune yu dem rit alors que ci dëkk bi nga dëkk mhm. donc ñun ñëpp benn lañ ay frontières yi ñuy tracé dañ ko trase noonu rek waaye boo xam ne commune yu dem rit commune Koungheul commune Fass Cekkeen je pense que yooyu yëpp benn bu ñu dañu war a mën a xool suñu lamp yi nan la war a mën a jégee suñu courant yi nan la mën a jégee dem ci kër yooyu te du am benn problème waaw di wax tamit ne euh, beneen bi ci topp mooy wàllu marché bi je pense que wàllu marché bi tamit kenn du ne góorgóorlu ci marché mhm. problème salubrité la wax tey problème salubrité tey euh, dugal nañ fa ay poubelle su aussi am ay noonu ñu ngi def lu ñu mais marché aussi dafa mën a produire ay déchets tout mairie bi rek moo ko war a mën a gérer il faut que aussi euh, marché bi nangu accompagner comité de salubrité boo gisee daaw poubelle yi yu ñu fa dugal bari na bon peut-être biñ koy am amee wuñ ko sax ci budget état mairie bi waaw leneen loo xam ne mu dem lijjanti lii ñun ñoo ko jënd lii am ñu ñu dimbale ñu dugal ko rien que pour mu baax mm-hmm. donc je pense que esprit boobu bu ñu ko demee war nañ war nañu mën a régler problème mën nañ wax ne aussi il faut ñu démarrer marché bu bees dañ dañ ne dañ fay def doomam fi léegi commune bi wax joxe naa instruction pour que mairie bi pour que bureau municipal convoque rapidement une réunion avec les conseillers ak commission mm-hmm. ñu jéem a jàpp benn date boo xam ne ci la ñuy lancé marché bi mu nekk benn luuma boo xam ne chaque semaine wala chaque deux semaines nit ñi daje léegi nag ñi ngi waxtaan ak aussi yenn commerçants yi euh, yoo xam ne peut-être ñii kungal la ñu nekk ñii nekk ñu Koungheul waaye ñu nekkul kungal bu ñuy ñëw tamit il faut ñu déggoo ak ñu nekk Koungheul pour que ñu mën fa installé ñu def fa benn marché euh, boo xam ne benn foire boo xam ne presque un mois lay duré mais du am benn tente c'est-à-dire cantine yi lañuy la ñuy occupé Koungheul yëpp étranger ku bugg cantine da ngay ñëw ñu jox la cantine ñu def baat ci digg bi mu fonctionner guddi ak bëccëg pendant un mois après affaire bi mën a continuer je pense que dañ ci réunir fan yi pour que au moins. gis ci côté boobu noonu foire bi am foofu la indi problème ci commerçant yi ci day mais mais il faut ñu waxtaan aussi. parce que wax commerçant dëkk bi Nous sax commerçant mais waa dëkk bi ak waa foofu bi il faut ñu wax ak ñoom rawatina commerçant euh, marché bi waxtaan ak ñu d' accord ubbi foire foire day am nag man Nous laa waa ñu fa di def seen i foire bu ñu fa jógee

ñu ngi ñu ngi def c'est-à-dire seen kër yi loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax euh, di wax na nag loolu tamit ay résultat la dafa mm-hmm. fekk na kay euh, résultat nit euh, moo xaw a doy waar rek boo boo ko tegalee fukki problème bu tegee bu la tegalee fukki problème boo réglé fukki boo réglé juróom-ñeent yi day taxaw ne la benn bi des nag te boobu rek lay gis loolu nature humaine la kenn mënu ci dara aussi

Euh, waaye kii tamit tax na ba regretté wuñ euh, bu baax euh, Tounkara parce que moom it vraiment fi Tounkara teggi tànkam la ko teg mm-hmm. waaw moo tax daal jooyuñ tey jii vraiment un capitaine des eaux et ba maa ngi ko ciy félicité moom parce que gis naa xarañ bu mu àndal lu mu ñëwee rek la ñu proposé benn projet boo xam ne aussi mënuñ ci dugg noonu voilà proposé nañ conseil municipal dinañ ko dugal pour que au moins ñu commencé maintenant culture bi ak campagne bi day nekk presque toute l'année waaw day jëmbat ay garab ba pare teg ay jumtukaay yoo xam ne ñoom ñoo leen di saytu leen xaw si moom loolu la ñu proposé je pense que loolu la ñuy def ci budget bi moo tax comme préparation la laaj nag te loolu li ciy dugg di parax parax voilà waaye foofu li may invité rek mooy invité population bi wax na affaire garab du affaire conseil municipal du affaire maire du affaire maire affaire population il faut que seen biir kër yi ngeen def ci arbre fruitier seen buntu kër yi ngeen def ci arbre ay ay garab keppaar mm-hmm. te ngeen koy saytu bu bu bu ngeen ko saytoo rek mu dund bu dundul ngeen changé ko loolu rek moo fi nekk waaw am na garab foo xam ne bu demee ba jàpp li ci des moom day yomb kon boog maa ngi invité vraiment population bi ñu jëm ci góorgóorlu bu ñu mënoon dem sax ci xut ba jumaa yi di ko wax parce que garab yi moo ñu mën a sauver mm-hmm. garab yi moo ñu mën a sauver avec Koungheul dafa

waaye dañu war a romb tamit nous euh, ñuy def ci sport chaque année ñu joxe ay subvention après c'est bon nous ko euh, ko bàyyi nañ ko juste euh, comme di conseiller wax nous def ay di di aussi comité de jeunes ak organisation loolu am nañ ci ay ay xalaat yu baax te gis nañ ne tamit euh, nan la ñuy def pour réaliser formation yi moom je pense que dañ ci dugal bu baax suñu waxoon cette cette année incha allah euh, même euh, ci wàllu sport aussi jot na tamit ñu ñu lancer tey yi boo gisee athlétisme ñu ngi ciy am ay résultats yu baax. Hmm? même le basket maa ngi doon wax ak responsable yi ñoom la Diouf pour que ñu def benn tournoi ci mois d' mais bi am tournoi de tournoi interquartier lay nekk. waaw ñu ah, def ko dina fekk peut être terrain bi paré ñu def ay championnat nga xam chaque jour day am deux matchs ou trois matchs mën nañu ko commencé. Mm-hmm. match de basket bu ñu paré le champion ñu décorer ko jox ko xaalis. je pense que événement boobu ñu ngi koy préparé ak. ñu seulement yem ci football seulement. waaw bañ a yem rek ci ci ci ci ci ci football. ren moom bëgg nañ commencer lancer basket bi incha allah. bu yalla défé nak suñu terrain municipal multisport bu pare bële aussi pare bi nga xam ne aussi conseil départemental bi ñu ci jàppale su yàlla defee bu pare bi nekk ci stade aussi pare day gën a yombal suñu liggéey ci wàllu boobu ci éducation ak formation comme euh, ni ñu ko waxee euh, mun dañu war a continuer euh, di jokkalante ak ak IEF parce que Koungheul dafa am tey jii li ñuy wax gannaaw gannaaw boo xam ne ñun lu ñu tabax ci école du doy lu ñu am ci mètre du doy parce que nit ñi dañuy déplacé wu di ñëw donc mooy la population bi di yokk c'est normal que école yi dafay yokk besoin yi dafay yokk budget yi ñuy joxe tey jii euh, ci ay fourniture scolaire euh, dix douze millions lay war na yokk parce que aussi école yeeg yëpp yokk donc besoin yi dafay yokk cette année ci côté éducation def nañu fi 20 écoles am ngeen 8 écoles euh, publiques élémentaires. waaw 2 écoles jardinières 8 écoles. des daara day yokk rek day gën di yokk jàppale nañ daara yi jàppale nañ ñep naa foofu moom aussi dama fay félicité IEF félicité fa parents d'élèves yi félicité fa aussi directeur d'école yi ak enseignants évidemment comité de gestion parce que tay yi ñun nek nañ référence ci région bi nek nañ référence ci Sénégal pour résultat yi ñuy léegi nag li ci des mooy population bi tamit saytu dama wax naa ko léegi jàng école baax na jàng alxuraan baax mën nañ sax léegi boole lañ nit ñi di dem ci daara bi di jàng alxuraan di naa ne daara yu bari tamit ñu ngi góorgóorlu di dugal njàngum français bi ci seen biir seen biir arab loolu it hmm, baax la ñu ngi koy encouragé waaye li gën mooy population bi di déclarer seen doole

ñu koy compter day yombal rek école yeeg fourniture yeeg daara yeeg yooyu daf koy yombal waaw pour ñu gérer donc population bi ñoo mën a gérer fi ñu xaaru si population bi mooy xale yi quitté école des fois xale dina jàng ba seen bàyyi parce que tout simplement tout tuuti moo tax mu bàyyi peut-être population euh, parents d'élèves yi amuñ suffisamment sensibiliser wuñ leen ñoom mu jàng ak mu ñàkk jàmm ñemale mais su fekkente ne am na benn chef de quartier wala benn délégué de quartier wala benn relais wala benn conseil mhm. wala benn citoyen tout simple bu nekk ci quartier gis xale bi jàngi woon war na mën a insister wax lu tax xale bi jàngi woon su fekkente ne lu ñu mën a saafaraal la ñu saafaraal ko su fekkente ne aussi lu ñu mën a dooleel la ñu dooleel ko ba xale bi dellu biir waaw dem jàng loolu ci benn côté bi ci côté éducation gis na ne centre formation bi biir commune Koungheul la nekk c'est vrai que bu nekkee ci benn commune sax mais

danañ ko réaliser bu soobee yàlla loolu ñu ngi sant ministre de l'enseignement supérieur di ko ci félicité di ko gërëm di gërëm aussi Olivier conseiller boobu ñëwoon fi. te ba déggoon ñu ba déggoon ñu loolu di wax tamit ni euh, dañ ci waxtaan aussi ak conseil départemental pour xool loolu yëpp nañ ko mën a booster pour xool xale yi ni leen mën a jàppale parce que am na ay lignes ñoo xam ne am ay bourse des fois ay bourse scolaire yooyu bu fekkee mën nañ ko dooleel hmm. pour euh, étudiants ak élèves yi fay dem

progressivement euh, di doler sen enseignement daara bi di ko dooleel ak enseignement scolaire mën na ci profité saluer l'action de Serigne Mor Sy vraiment wax ni ne yàgg def loolu donc euh, élèves yépp yëpp dem nañ à l'université dem jangi jang wàcc alcorane wàcc daara je pense que loolu wàcc école euh, française française

dañu war a euh, fexe cadastre bu Kaffrine bu depuis six mois ñu ngi travailler pour def mission pour ñoom mm-hmm. et je pense que bu ñu ñëwee reprendre cadastre Koungheul dina régler problème bu bari li ko def li problème yi jur fii tey mooy que euh, def nit ñi dañuy à la limite problème yi am yëpp c'est des problèmes privés mm-hmm.

tout le cadastre génne ku ci nekk li nga moom ak nan nga ko moom loolu bu ñu ko amee ba pare yi nga xam ne euh, régulier wul ñu régulariser ko bu ñu paree na ñu am benn base boo xam ne ci la ñuy travail moom ku am sa problème ñaar ñu am problème nañ dem justice affaire bu àtte la kuy porter plainte bu porter plainte ku am tort fay mu jeex ñu génne ci ñu ci wax tuuti bon c'est normal aussi problème yi fi am.

pour un nouveau quartier, ah mais ba léegi c' euh, c'est vrai que amaguñ euh, kii bi euh, pare benn quartier bi rek moo am problème de délimitation donc loolu yokk nañ parce que quartier dañoo quartier Niassène déjà mën nañu chef de quartier yi ak Koungheul ville yooyu xam xaj nañ ko waaw léegi mu des peut-être ak quartier Santhie xam ne aussi am na ay liggéey ñu fa war a pour au moins euh, ñu mun a am deuxième quartier bi di rafetlu loolu aussi parce que bon euh, baax na lool parce que gestion de proximité la day tax que mairie bi gën a jege population bi parce que population bi bu ñu soxlaa dañuy dem ci chef de quartier pour santé ak nutrition aussi liñ ci wax rek mooy euh, li ñuy def baax na mais dañ koy doole gën ko doole donc mais organisation yi fi nekk ay ay ay ASBEF comité de santé donc il faut que mairie bi gën euh, travailler ak ñoom mais ñun dañu am affaire de santé bi lu naqari suñu xol fu le moy xalé yi nga xamné dañu am jafe-jafe dañu judd ba paré am jafe ak jigéen yi nga xamné bu ñuy jur ñu am ay problème té ñu dëkk ci commune bon c'est vrai que bu ñu dëkkee tabaxoon nañ ci maison de justice mais fi infrastructure bu ñu am rek presque pour département bi yëpp ñi ñoy ñun ñooy dépense suñu xaalis pour mm-hmm. département même même fait fekkente ne Euh, yeneen commune yi dañu am seen i xaalis ci pour yooyu secteur daanaka duñu ci dimbale mais comme dañuy wax ne département bi comme ñun ñooy ndeyu département bi il faut que aussi yenn yi ñu nangoo ko mais lu ñu dul mun a accepter mooy aussi nekk fi war a mun a saafaraal yenn yi te saafara xale jigéen ñi am doom dañu war a leen garantir ci ndimbalu yàlla xale yi ñuy jur tamit ñuy mucc bu ñu muccee ñu am kayit jigéen ñi mucc.

kii nga yóbbu ko bu amee problème nga yóbbu ko hôpital bu fekkente dem na ba un mois mhm. vraiment ñu ubbi maison d'accueil mu dem dugg ci maison d'accueil ci maison d'accueil boobu la ñëw depuis bi hôpital bi def déplacement ñëw Regagny hôpital bi ko waa PAWRES euh, réactionné da gis na maison d'accueil bi gars yi ñu ko bàyyi noonu est-ce que am na mairie bi lu ci jël soo gën ko defaraat pour mu continuer comme li wax ni parce que gis nañ ne les femmes la plupart ñu ñëw doole duñu xam fu ñu dem bu ñu amee problème

ñu mun di dajale ndaw yi jigéen ñu nekk gën a féetoo ndaw yi nga xam ne ñu toll ci ay joo di leen expliquer yenn méthodes yi nan la ñuy dàmpee yan garab lañu naan jël nan la ñu doon defee seen liggéey nan la ñu doon def bay yàlla leen muccal ci lu bari loolu ñu ne expérience la yoo xam ne maire yi seen bopp ñu ngi ko garder mhm. te te waruñ dem ak loolu moo tax ñu créer centre de formation pour que ñu transmettre seen connaissance boobu à génération générations

mais dafa am benn point boo xam ne depuis 3 ans ñu ngi koy dégg ba gisaguñ ci dara mooy euh, avec Promoville mooy 8 kilomètres goudron yi ngeen waxoon ci biir wax ñu si projet wala koy koy xaar ba léegi mais gisaguñ ci dara ba léegi. waaw Promoville moom euh, je pense que chaque jour na jéem a wax ak euh, directeur général madame Aïssatou Diokhane Assou Diokhane li ko ta ta janvier daaw dañu waroon ñëw bon li ko.

pour ñu mën ci campagne bon je pense que ñun politique moom soxaluñu loolu. lool bu jotul. waaw bu jotee nag dinañ mun a dinañ mën a politique mais promobile bi yaakaar nañ ko lool. te nekk na lu lu wér Koungheul retenir nañ ko. waaw ñu ngi dox démarche yi pour que ñoom ñu gaaw ñëw mais incha allah dinañ ñëw. bu loolu weesoo am nañ Pakasen waaw waaw

voté suñu compte DG suñu suñu compte administratif. voté ngeen ko def nañ ko tay donc euh, je pense que envoyer nañ ko léegi dañ ko envoyer et puis incha allah rabbi dinañ ñëw pour euh, d' abord euh, defaral ñu óolu marché yi parce que am na yenn yu ñu fa yu ñu ko identifié woon identifié woon ensuite defal ñu foyer moderne. foyer moderne culturel. je pense que loolu 150 millions la. Euh, bu donc ko defee dina baax trop pour développer culture mais aussi pour jeunesse et pour femme mais aussi pour euh, les euh, pour la culture ñi ngi xaar aussi comme on a tuddee des Sénégal waaw boobu aussi nañ appuyer pour mu ñëw il yenn a une extension yi surtout pour que ñun tamit nga xam ne dañuy yóbbu lamp rek teg fa waaw On a dëkk bi aussi onage ñoo yor assainissement euh, ONAS. ah ONAS ONAS oui. document bu rëy sur euh, Koungheul pour faire un projet projet pour faire une station d'épuration pour faire un beau de vidange andi camion vidange aussi. nga xam ne dañuy ñëw vider fosse yi ko déposer dans un dans un dans dans une station euh, d'épuration. à booster aussi le réseau d'assainissement mm-hmm. appuyer aussi en matériel d'assainissement.

defal ay cantine ci biir euh, école bi quoi. muy lu am solo ci point yi ñu dégagé yëpp mais monsieur le maire balaa ñu ci côté communication gis nañ ne. Euh, bokk na ci mairie yi gën a am sens bi kon nag chaque jour bu adressé DOV sa population danañ xam li li li fi wax ak li nga bëgg a def ñëpp ñu teewlu ci ñi am lu xawoon lënd ci ñoom ñu mën ko xam ci débat bu am solo bi wax parce que huit points yëpp bu nekk am nga ko tas nga ko wax li nga ci bëgg ak fi ci bëgg ak ñoo ñoo ci àndal. mais ñu gis ne au niveau de Koungheul am nga chance am benn site internet bu fi nekk au niveau de Koungheul am benn télé Go TV bu fi nekk boo xam ne population bi nekk ci biir Koungheul dañu xam luy xew mais dañuy gis ne la plupart ay subvention wala genre demee noonu gars yi dañuy fàtte de côté ak tuñu moment loo xam ne euh, lépp lu xam ne information bu war a jee ko ci wala ak askan bi war nañ ko mën a jël àggale ko mais la plupart du ñu gis au retour la jéego ci yéen ñëw si ñun comme ni ko yeneen institution yi wala ñeneen ñi di ko jëriñoo lu mel ni sport bi wala yeneen communication tout ci la bokk c'est vrai que nekul compétence bu ñu war lu mairie wa def mais dafa nekul xamné ne devoir la wala yow da nga koy soxla sa su ne parce que da nga bëgg a wax sa askan mënu dugg ci benn kër chaque jour ñeu dugg fa mais bo jaaree ci télé bi wala ci site bi li nga bëgg dina ak est-ce que yaa ngi prévoir quelque chose pour ñooñu wala waaw ñun day je pense que dañu war a prévoir quelque chose pour ñun parce que liggéey bi ngeen def d'abord dafa rafet liggéey bi mucc na ayib c'est vrai que début bi euh yaakaaruñu woon ne euh,

boo xam au moins du diis si ñun du diis si yéen euh, ngeen découvrir suñu ay manifestations et puis ñu xool boobaa dañ ko war a mën a propose solution mais bu dul loolu day nek day xaw a diis lu bu diisee rek day ñëw ci maire wala mu ñëw ci président conseil départemental voilà mais suñu bëggee bu ñu bëggee formaliser yéen ñu ci mëna a proposer ñu ay protocole yo xamné c'est pas du tout très compliqué mm-hmm. di couvrir suñu ay manifestations de façon yi ça vous arrange parce que euh, c'est juste dire euh, activité mairie li, ak lii ak ak activité conseil départemental lii ak lii ak lii war nañ ko def pendant toute l'année ñu ko vous ko def toute l'année nak li nga xam ne daal ñun comme contribution de ce côté contribution au côté c'est ñu loolu on peut signer le protocole jéem a xool nan la mobiliser xaalis dans le budget pour mu yomb ci yéen yomb si ñun léegi si c'est des activités extra qui sont souvent politiques

moo tax ñu kon je crois que monsieur le maire lii kese la bu fekkee am nga leen la ci yokk balaa ñu tëj waxtaan bi ci point yi bi ak li nga bëggoon sa askan yëg ko am na yeneen point lu xam ne tey gannaaw wax yombul du daf wax sa askan yu gis ko tey je crois que bu ñu ko dugalee ñu bëgg nañ xool bu amee la ci yokk ñu bàyyi la nga yokk waaw sant ak gërëm mhm. te yéen d'abord félicité leen ci liggéey bu rafet bi ngeen di def leen mhm. euh, ci encouragé yombul na

waaw loolu xam nga comme école cinq bi jotoon nañ ko wax sax ne ko Babacar Ndaw lañ ko tuddee doon wax pian mu nekkoon jàngalekat waaw bu jàngalekat bu xarañoon bu Koungheul dëkk fi finalement mu ñëw dëkk Koungheul hmm. fi sax cosaanoowu fi waaye fi la dëkk Koungheul ñu ngi ko suul fii ci arménie euh, euh, dama ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko jigal ko yàlla sàmm njabootam euh, ñun ñii ñëpp tey jii yàlla def na ñu ngi man dara yàlla ak euh, amooram ak bëggu Koungheul moo mm-hmm. tax xam naa sax ñu bari jaar nañ fi waaye moom peut-être daf fi gën a yàgg euh, yàggaay boo xam ne euh, je pense que am na njëriñ lool ci mm-hmm. Koungheul moom lañ tuddee école cinq bi école six bi suñu maam suñu bàyyi Youssoufa Aydara Youssoufa dara waaw ginnaaw laay bu nekk dëkk campement moom lañ ko tuddee mu nekkoon tamit kilifa bu mag ci campement nit ñi déggal ko je pense que euh, aussi tuddee ko école sis bi dina màndargal tey jii euh, école bi euh, ba waa koñ bi bugg ko war ko mun toppatoo parce que loolu lañ ci wóor waaw pour que njaboot bi njaboot yi di sàmm école bi ba pare toppatoo ko waaw école franco arabe bi tamit tuddee nañ ko tey ngañ ba nga xam ne tabax na fa ñaari ñaari classe mm-hmm. te ngañ ba aussi def na fa def na lu bari ci eh, éducation bi def na lu bari ci coopération décentralisée yàlla jëlee na ko fi keroog bi ñu koy jullee maa ngi fa jël naa kàddu engagé woon naa ne dinañ ko tuddee aussi benn école ah, ak Koungheul yàlla def na tey ñu matérialiser ko kon loolu aussi dama ciy sant yàlla ñu ngi koy ñaanal aussi yàlla yërëm ko xare ko àjjana ba pare sàmm njabootam baax a baax a baax a baax na su ma demee suñ demee Dakar dina def këram seeti soxna si Euh, jébbal ko euh, xibaar yi ko mu jotali ko aussi euh, njaboot gi nekk France dox na lu bari ci wàllu coopération décentralisée entre Fontenay-sous-Bois ak ak Koungheul mm-hmm. école 7 tamit dañuy proposé Youssou Soumaré Youssou Soumaré conseil municipal aussi référé nañ ko accepté nañ ko tamit mu nekk kilifa boo xam ne moom it ci biir Koungheul tey jii bu ñuy wax bu ñu amee jumaa Koungheul tey yàlla ak moom

Euh, ressortissants yi aussi association des ressortissants yi aussi nañ ko jagleel parce que ñomit euh kelifa la bo xamné ne euh, ñoom ràññee nañ ko fonk nañ ko donc ci biir bu ñu ko tuddee day Youssoupha Soumane rek nañ jàpp ne ASREC mooy comité euh, association des ressortissants de Koungheul ñoom lañ ko defal ñoom lañ ko cërale mm-hmm. ci ay journée euh, médicale yi ñuy def ak ci bu ko gungal bi ñu bi ñu bëgg chaque jour ñu ngi réunion réunion kër Keba Dieng pour affaire gungal pour xool nan ñu mën a intervenir ak kon ñu ngi leen ci sant di leen gërëm di féliciter aussi euh, turandoo école bi mm-hmm. yàlla yàlla guddal fanam parce que aussi dundam bi am na njëriñ am na njëriñ bu baax a baax a baax am na njëriñ en tout cas ci étudiants yi am na njëriñ ci Koungheul am na njëriñ ci askanu Koungheul parce que li muy def ci biir Koungheul sax moo ëpp li muy defal te da def discrètement yàlla tax lu ne lay def lu ne lay def comme boobu loolu euh, je pense que dinañ ko jotal yi moom it xabaar euh, école case des tout-petits aussi joxoon nañ ko tur tuddee ko Asana Touba Asana Touba Asana Touba Asana Touba su koy natu Ousseynou Touba Ousseynou Touba madame Diallo Ousseynou Touba Ba Diallo parce que nekk na la première directrice d'école primaire. à mm-hmm. ba retraité je pense que école primaire lañ ko école ki lañ aussi xam loolu conseil municipal il a ko proposé d'applaudir. ça veut dire que daf ko mérité daf ko mérité te euh, ñaari affaire la Nous réglé d'abord d' euh, abord le fait que on euh, est jigéen. waaw parce que mënuñ tudd tuddee ay góor góor góor kese alors que jigéen amul suñu xel dem na ci euh, ñu bari waaye du ñu ko proposé gars yi teguñu ci teguñu ci voilà bon Assenatou aussi euh, Assenatou aussi bon ñëpp xam nañ ne euh, kii na nekk na koo xam ne ràññee nañ ko trop ci wàllu jàngale bi mm-hmm. ah. ci ci ci wàllu jàngale bi ci walu euh, aussi bu ko xale ak bu ko école ak li mu contribuer Koungheul vraiment je pense que waaw mérité ñu ko bu baax euh, di euh, amna aussi ben classe bu fa ne je pense que le ma retenirul encore tur tur gosse là mais foofu aussi amna ay tour yu ci biir case ci biir case ci biir école 7 là école 7 la hein?

Alassane Alassane Niang. waaw koo xam ne tamit 91 la ñu Koungheul. waaw 91. lii Koungheul di nekk commune. Mm-hmm. façon liggéey bu baax bu nekk def na ko. Mm-hmm. tey bu ñu demee ba mun dara ba nit ñi di ñu naw ci dara je pense que liggéeyam liggéeyam moo tax loolu aussi waruñ ko fàtte. dafay dem retraite. waaw dem na retraite et même malgré bi mu demee retraite sax dafa doon continuer di ñu jàppale. jàppale dañu jàppale euh, ci liggéey bi def moom daal jàpp na ba à la limite euh, force amir jeex amu ci dara nag foo dem secrétaire municipal yi am nañ lu ne def nañ lu ne parce que am nañ ay possibilités aussi am ay budget yoo xam ne lu neex ñu def ci mhm. waaye kii moom tey vraiment Koungheul desalatu ko dañ ko war di gërëm rek di jur gi di ko ñaanal di ñaanal njabootam aussi lu ñu mën nag Nous continuer de ko vraiment ñu ngi insister ci population aussi nous bàyyi xel ci moom bàyyi xel ci njabootam bu baax il a tout donné pour pour Koungheul il a été vraiment pressé comme comme une orange euh, je pense que tey jii euh, mérité na et ay remerciements ay félicitations ay félicitations te bu jotee aussi dinañ ko fait une grande décoration incha allah. léegi école yëpp kan lañ koy kii nag école yi ci dañ jàpp aussi ben euh, buñ ñu waxtaanee ñap euh, famille mhm. dañuy japp ben bis bo xamné dañuy def cérémonie bi. Mhm. waaw léegi amna ben procédure boo ñu xam dañ koy def informer aussi ñoom ay IEF. Mhm. parce que buñ défé procédure ba paré normalement directeur d'école dañuy wax di signer am en tête turu école bi. moo tax cachet yi il faut que ñu changé donc procédure yi dañuy xaar mu avancé pour di def une grande cérémonie. avec les familles pour présenter. mu ngi information yow sala je crois que monsieur le maire lii la woon. te loolu ci yokk ci débat bi débat d'orientation bi ñun ñëw pour jël ko fii déglu la dégloo ko sa askan wax ak sa askan ci neuf ci huit points yi fi jot a développé mais ci information yu am solo yi fi joxe ñi xam ne dañ ko méritoo liggéey Koungheul lu bëri nga jëlee école te tuddee leen ko moo nekk lu am solo. je que lii la woon rek ci waxtaan bi temps bi amul am na ñeneen ñu lay xaar te am nga leneen ci la war a nekk mais tey wax nga sa askan da war a wax ak ñoom moo tax nga jël temps bu gudd jox leen ko pour wax leen li jot a xew ci DOB bi wax leen li ngeen fi jot tënk ak li ngeen jàpp ni war nañ ko def ci Koungheul kon xanaa di la gërëm di la sant rek bàyyi kàddu bu mujj gi encore une fois maanaam kàddu gi di jeex saa su bu ñu duggaat rek kàddu gi mujj day ñëwaat. waaw xanaa di la bàyyi rek fekk am na ne kàddu rek ñu dajee ko. non non sant ñëpp di yi nii la woon ak monsieur le maire bu Koungheul ci teew bi tey mais li ci gën a am solo rek mooy li ngeen jot rek ci euh, studio yi xam ne dippee nañ ko école yi nekk fii kon ñu ngi leen gërëm di leen sant jërëjëf